asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu mbokk yi Habiba Baldé ñëwaat na macha allah ci beneen plat te dañuy togg suñu ceebu jën bu weex macha allah waaw suñu jën yaa ngi nii jën yi bees tàq tubaabe neex macha allah waaw bi suñu tëll bu baax bi macha allah di thon blanc moom lañ am am suñu xaru bopp thon blanc boobu accompañe kook suñu ñaari jën yu rafet yi coofe yi machallah léegi nag suñu ndugg baa ngi ni waaw supame karot patas ñambi euh, jaxatu kanja kaane sofia kaane cukuri tamate doom suñu roof kaane salad euh, am laaj bien sûr ñu oño bu bari boobu machallah waaw kay am suñu bëgg tey moom dañuy bëgg nag ba mu neex waaw nag suñu daqaara ngoog tey dañuy defar suñu suur bu baax am suñu kaana bu sew waaw dañ koy dëbb rek léegi suñu nokkos baa ngi ni dëbb nañ ko waaw roof bi lañ jël dëbb ko ak kaana bu sew kaana cukuri kaana xeeñ kaana sofia moom yëpp lañ jël ak laaj ak suñu oño ak tuuti kaani salaat ñu daal di ñu dañuy roof suñu jën waaw nañ ko roof noonu luñu wax ne nañ roof jën yàqu jën <laughs> dangay dolli def ko dong mhm. nañu roof suñu jën yu baax yooyu macha allah daal di teg suñu cin waaw suñu cin baa ngi ni teg nañ ko nag def suñu diwlin tey nag dañuy saaf suñu jën tuuti rek benn côté bi kese kese sama waa kër moom am na ñoo xam ne bugguñu jëna tëmbal am na ñoo xam ne bu saaf bi moo leen gën suñu nokkos baa ngi nii dañ koy ñu daal dëbb suñu mixeur waaw nokkos baa ngi noonu waaw tuuti soble kaani xeeñ kaani sofia kaani salade oignon lépp lañuy jël daal di ko def suñu mixeur foofu mu gaaw lool noppale lool macha allah waaw kay nañ ko ñu dem mixeur ñëwaat waaw suñu mixeur baa ngi ni mixeur ñu affaire yi bokk na rumba macha allah léegi def leen tamaate bi jël dañ léegi dañuy jël tuuti nokkos ni daal di ko boole ak tamaate bi moom la ñuy rusi allah waaw léegi mbokk yi rusi nen bismillah rusi nen suñu ki seppi nen jën benn côté keese lañ ki saaf rusi nen ko léegi dañuy ñëw daal di ñol bismillah léegi euh, rosi bi dañ ko bàyyi mu lakk dañ koy bàyyi tuuti mu xaw a doore tuuti rek ñu rosi gis nga jëlal ma doore boobu am na solo léegi suñu bagage yaa ngi nii moom lañuy jaal di ñëw tëmbal ci suñu ñuluk bi incha allah moom moo nekk nii waaw karot supame carotte pomme de eh, <laughs> ah, xam naa koor gaa ma jàpp lépp macha allah moo nekk noonu batanse jaxato ñu am suñu ñambi waaw suñu uh, kii baa ngi noonu ñu laxas noon bala muy tas géej bi ñu laxas ko ci bisaab bala muy tas léegi mu ngi noonu def nañ ko ci ñolob bi léegi dañuy ñëw daal di def tëll bo bi ak uh, yaboy bi ñu bàyyi ko mu def ay affaire am lu yàgg xam nga suñu jën yi comme dañ ko dañ ko dañoo saaf benn côté bi dañ koy bàyyi ba ci kanam ñu daal di ko delloo moom tamit waaw suñ jën yaa ngi noonu gis nga benn côté kese lañ saaf bi style la <laughs> xaw ma style nag ñaareelu bu leen ko sàcc de <laughs> waaw kay xam nga waa kër gi am na ñoo xam ne bëgguñu uh, saaf bi uh, am na ñoo xam ne bëgguñu tëmbal kese kon foog ñu jaar ci ñun ñëpp nag nekk la nga ñu def ko suñu kii baa ngi noonu ñu koy tey suñu ceeb ceeb parfumé la nañ ko tey ba mu baax léegi nokkos bi ñuy dese mu ngi noon ak suñu suul dëbb nañ suul bi ba mu mokk léegi nag suñu ñulo baa ngi noonu baaral nañ ko lu yàgg léegi dañu ñu daal di delloo suñu jën nag moom tamit macha allah ñu bàyyi ko mu def ay affaire ñu sàppali ko ñu sàppali ko daal di ko defal tuuti après delloo nañ ko léegi dañ koy ñëw daal di defal euh, tuuti nokkos moom tamit macha allah. def sa xorom ah, def li ngay sàppale yépp maji arum ah, loo am li ngay sàppale sa ceeb moom moom ngay def nga daal di sàppale sa ceeb am lu lu frais macha allah yéena ma gën a xam nag ñuloog bu ndaw <laughs> ceeb bi aka tuuti xalaa bu ma leen waxoon ne liibar a gënaa liibar moom doo ma gëm de ah ëpp na na waaye mu ngi noonu mu ngi noonu macha allah léegi nañ ko tëj ñu baaral ko ba ñu mel ni kuy fàtte ñu mel ni ko fàtte incha allah après ñu ñëw daal di ko seppi ñu daal di ñëw euh, léegi nag euh, suñu baaral baa ngi noonu léegi toog toog toog toog lañ desal mu ngi noonu macha allah am na solo toog lañ desal mu ngi noonu gis nga léegi seppi naa li ci biir yëpp. dindi naa seppi naa ko seppi naa li ci biir yëpp ba ba suñu ñulu baa ngi noonu na macha allah léegi dañ koy ñëw daal di ko sàppaliwaat delloo fa tuuti léegi kii bi ñu dese woon nokkos bi ñu dese woon moom du def ceeb bi dara du ko tilimal du ko saltel waaw léegi nu ngi noonu oh, sóor ne nag suñu ceeb gis na tuuti oh, ceeb la <laughs> tuuti la rek xam nga koor gi sinon bo sooree lu bëri tamit mën na yàqu ay yooyu noonu te man moom ceeb man li ma préféré na jën yi ndawal bi bëri waaw kay man moom ndawal li bëri légumes yi yëpp bëri macha allah nga am légume bu nekk nga am si même bu dee toq la sax <laughs> loolu daf ma ci neex ci ceeb macha allah léegi mooy noonu seppi nen suñu seppi bàngoog jën yi tasuñu hmm, macha allah ñoo ngi noonu suñu ndawal yaa ngi noonu suñu légum yaa ngi noonu machallah am na solo lool am na couleur bu doore bu rafet ah, mucc ay machallah gis na bisaab bi tasul géej bi baa ngi noonu ci biir tasul moom tamit léegi suñ suur baa ngi noonu li ma seppi ci affaire bi ci biir yépp mu ngi noonu bopp bi ak ay affaire yu yena ma gën a xam <laughs> moom laa seppi noonu moom tamit après dina dem ci yàq bi léegi suñu bisab baa ngi noonu baxal nañ ko dañuy defar suñu bëggëj na tey dañuy defar suñu bëggëj de waaw kay léegi euh, suñu suul bi desaleen nañ ci moom lañuy daal di jël dobbee ko defar ay affaire yu bari macha allah mu saf suñu dakaar baa ngi noonu moom tamit raxas nañ ko defar nañ ko am na solo léegi nañ xool suñu ceeb moo ngi noonu gis na après dama ci def sama suul noonu ci kaw noonu mu jaar yoon léegi dañuy def suñu premier jeexi ñu xool suñu ceeb fu tollu yéena ma gën a xam macha allah <laughs> ceeb bi ndaw na mais saf na mu may jox fi benn ah, bàyyi ma yem foofu ñu teg foofu suñu baaram comme dañoo woor <laughs> léegi moo ngi noonu nañ jeexi suñu ceeb xool nu muy def ah. mbaa jaar na yoon moom de dafa laka góor sax est-ce que dina fi am xooñ tey man nag dama ñeme baaral ba ñeme baaral lu baar ah mm-hmm. mu ngi noonu moo tax daal man sama gaz di jeex <laughs> duma yàq gaz de ndax moom togg gaz lay dana dama bëgg lekk bu baar togg bu baar rek laa bëgg man mu ngi noonu macha allah léegi nañ ko tëjaat ñu bàyyi ko fa ab diir ñu dellu si waat léegi nag ñu ngi ni bokk dellu si nen suñu ceeb baa ngi noonu am na solo weser na doore na ñor na ah léegi daal nañ ko jëfi waat ñu ñu may ko quelque encore xaar léegi nag ñëw yàq suñu jeeb suñu jeeb bi ñor na suñu aset baa ngi noonu yàq neen ko ah mujj na sakkan de macha allah léegi teg neen suñu jën bagage yaa ngi noonu teg neen lépp macha allah léegi de ah mat na de ceeb baa ngi noonu mat na ceebu ndar <laughs> lii de ceebu ndar laa ko tuddee bii ëpp na instant bi moom mu ngi xooñ bi Daqaar bi am suñu bëgëj am suul mu jaar yoon marshalla ñu boole ko suñu benn jus bu mucc ayb ah ndox bu sedd guy defar suñu bisaab waaw kay na ma gën a xam waaw moo ngi noonu mashallah ceeb baa ngi ni bu nga ndogoo ko bu la neexee nga xaar ba ci kanama kanam nga reer ay 23h nga daal di tàngal sa ceeb baax reer ci jërë ngeen jëf xam naa beneen recette incha